mbokk internet yi dalati leen ak jàmm Mame Mbaye Niang defati na ab sortie ngir daal di wax naka saay su ne kawteef ci saa bu génnee ak ginnaaw bi nga xamee ni naka fan yi yëpp ñu ngi wax problème mu nervi yi nga xamante ni daanaka dañoo daal di ñëw assiégé tournée économique bu président Macky Sall bile di amal ci biir réew mi jamono ji mu nekk ci diwaanu Waalo Fuuta Matam moom mi nga xamante ni naka moom mooy Mame Mbaye Niang ne coowal nervi yi nga xam ne fan yi yëpp dañ leen di daal di dégg nag am nag benn gendarmerie ak police boo xamante ni daanaka ñoom ñoo waroon wattu yenn ci autorité étatique yi nag ci nag seen i tournée ak yenn nag tukkib nemmeeku yi ñi daal di amal ñoo war a wattu ba euh, kenn du leen jege waaye nag comme que gendarmerie nationale defuñu seen liggéey nag faw ñu recruter ay nervi nag ngir ñu daal di koy def moom euh, Mambey Niang noonu la daal di gisee ndax coow li fan yi bari na lool nag ci nervi yooyu nga xamante ni nee ñu dañ leen daal di recruter fii euh, ci Ndakaaru yóbbu leen nag di leen fay journée vingt mille ngir nag ñuy daal di képp koo xam ne da nga taxaw ngir nag sol morso yu xonk wala da nga taxaw ngir daal di nag naqarlu nag lenn li réew mi di doxee wala nga bëgg a fësal sa mer ci kanam président de la république Macky Sall wala kenn ci ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ay responsable politique te nekk ay ministre itam ku ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Oumar Anne ak ñenn ñi nga xam ay collaborateur président Macky Sall lañ te nekkee nag ca zone boobule ñu gis ne nga xamante sax moom mooy coordonnatrice bu Fouta Tampi bi euh, moom nag nee ñu sax dañoo gaawtu daal di koy rawale Dakar ginnaaw ba neex di duggee nag ci biir Fuuta bi di ko wër ci dëkk yi di biir kër ngir bëgg ko daal di nag faagaagal lu ñu mel nag euh, bi mu euh, daal di nag amee ba ci cortège bu ki nga xamante mooy njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany bi ñu ko attaqué ci Oréfondé foofee fépp nag mu mel ni nerve yi nag dañoo daal di visible nëbbatuwuñu benn yoon ci nag acte yi nga xam ñu ngi ko doon daal di nag amal moom mi nga xamante ni moom mooy nag Mame Mbaye Niang nag génn mel ni ku jël ndox wala boog diwlin daal di koy def ci safara si ngir mu de daal di gën a tàkk ni jëppeet nee nag moom dafa mel ni nag kuy daal di nag redouté ci li nga xamante ni moom mooy capacité suñu gendarmerie ndax nee na ñoom ñoo waroon di daal di nag wàllu yenn suñu autorité yi bu ñuy daal di amal seen yenn tukki nemmeekuy waaye nag comme mënuñoo def nag seen wareef ndax saa su ne bu ñu nee nag ab gendarme wala policier attaqué na benn civil nak ñu jël ko def ko ab cas restreinte faaw rek ñu daal di nag woowi ñeneen ñoo xam ne mën nañ ko def à leur place loolee nag moo daal di sabab yi leen neex bi ñu daal leen di recruter wala bokk yi leen neex bi ñu daal leen di nag bàyyi ñuy daal di def yi nga xamante ni moom la ñuy def te ñu bëri daal di jàpp ne nag soo dul la moom Mame Mbaye Niang nag nga xamante ni saa bu génnee wax njombe lii la daal di waxati ba génnam gu mujj ga nag mu waxoon ci mbirum Sonko ne nag ab violeur la boo xamante ni habitué des faits la itam ab muy wax lu ne moom Mame Mbaye Niang ah, nga ko waxee woon keroog ca 7TV bi la yoon nag waxati na moom Mame ñaam mi fi nekkoon nag ministre de la jeunesse nekkoon fii tam ministre des affaires étrangères jamono ji nag daanaka dañ ko làq ndànk yóbbu ko nag ca biir présidence jox ko fa ab bureau ah, ne ñu nag ab collaborateur la léegi simple waaye nag ñu ngi koy dàkkantalee sax ñeen ñi ne ah, mi ngi nekk ci nag direction de cabinet bu président de la république Macky Sall